tey nag yaakaar naa ñoo ngi nii fekk ko ci Parcelles Assainies ñu gisoon ko open press Modou Lo xamuñu lan moo ko waralan tey nag ñu fas yéene koo dalal bàyyi ko mu nuyoo mbokk réew mi ak bitim réew bu ko defee ñu jublu ci liggéey bi sëñ bi maa lay nuyu baax di la siyaare. waaw suñu warante ñu leen nuyu baax baax di leen di nuyu sa cameraman bi di ñëwee ñi fi nekk yëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaare di wax ne lépp lu ñuy wax daal yaa na doon luy jëmale. Euh, Sénégal kanam rek ak lépp loo xam lépp lu ñuy wax rek daan na doon kàddu yu jëriñ jëriñ ci kàttanu yàlla incha allah rabbi waaw. Euh, ci loo nekk sëñ bi. ñii di sant yàlla bu baax a baax a baax di sant borom Touba. Mm. waaw di sant yàlla bu baax a baax rek di di di sant ji di ndax euh, saa borom kat bu fekkee naa ànd ak say morom yoo xam ne mm. gënoo leen ci dara mm. yow tamit xëy na ne xam-xam boobu ñu lay wax wala loolu muy def lépp daa baax di la ko defal waaye xam nga ne tamit du loo miritoo ñu def ñu def heure boo xamante ni rek gis nañ ne jongante nañ ci dara moom may ñu ci nam ba dem nañ ba gis nañ sax bu ñu gisee yëg ci yenn vidéo yi sax nit ñi dañuy décrassé wu ba ci te ni nga ko waxee nii bu ñu gisee ci open press bi gis nañ ñu bëree bëree bëri dañoo décrassé wu ci sens ndax daan ne kii ba ji yow sax def naa bu mu ju am ñu ci envoyé ay vidéo waaw ndax ñoo xamante ni ndax loolu nag liggéey la boo xam nit ki lépp lu muy liggéey ak lépp lu mu jug ne day liggéey loolu war naa dem ba gëstu loolu ba xam ko muy làmb muy ñaan ci nit muy lu mën di doon war nga gëstu ba mu leen xam ne fu ci nit ñi dañ nga xam ne doo doo ci te boo ñëwee diñ ci def loo xamante ni yàllaa yor dana édition waaye dañu xam ne kii nii kii mu ànd ci lii wala lii muy mel ni këfu ci reetaanu ci te lépp lu muy jëf tamit maanaam de xam na ko baax a baax doo kaa jëf waaw am na solo dañuy gis sa relation ak sa Touba ba tax na da ngeen di bokk lu la lan lan moo leen liyee waaw saa maanaam ginnaaw bu ndax ñun ay murid lañ yoo xamante ni wax dëgg yàlla ku nekk gis saatu Touba ak yaatu gi yaatu xamante ni maanaam def naa nit moom yow jàpp gi ma ko jàpp moom ci moom la jóge ndax moom moo lay woon ngor baax yaatu ba lépp lu mu dugg ñun dañ ciy dugg ba jeex gis nga Modou Anta làmb ji nii dama cee dem ak sama ngoor ba jeex wallahi woo nañ ma ci may wax ni waa Pikine ñu bëree bëri ñu may dégg xaalis bu li ma ci perte li li ma ci ci a encaissé ëpp na 2 millions. mais Sa Touba lépp lu mu dugg ñu xamee ma ko man. bañ ne ko ku tudd Sa Touba jaañ nga ciy teg. bañ ne ba sax dañuy dem isaat ñii naan xanaa ay seex moom tamit mu jëma loolu ma jikkoo bañ nga ko ba gis nga ko sama kër lay fanaan may fanaan këram di fi ñëw ñu demalante ñu dem ba ma ne nag lii nii xaalis àdduna jëru ko te ñaaw na ci nit ëllëg suur combat bu ñuy gis man ma taxaw fee ci Ama Baldé wala saa Touba taxaw fee ci Modou Lô loolu lu gën a ñaaw amut te loolu tamit dañ naan bi ndax benn kilifa dana ma de boo andoon a ma yéen ñaar ñëpp laay maasindoo ragal ndax li ngeen àndee ba ñëpp rafetlu ko ba boo wëlbatikoo di ñaan a kee kee di ñaan moo tax combat bii nii depuis ma dugg ci ba léegi di tey jii nii laay doog am jàmm tey ndax fépp foo xamante nii rek man combat bu ma xasee ba jël dama koy topp moo xam sarax ndax euh, sa euh, tey ji gis naa bi mu la dugg si gars yi bëree bëri di wax naan dañoo déclaration woon ndax gisuñu takkaay gis gisuñu càngat ñu nangam may na xanaa dañoo xam ne làmb tegtal la ak sarax man mbër mën naa kaa ñaanal ba ni mu daanetu ko jox benn bitel ndax làmb tegtal la waaw kay tegtal yooyu nag lañ doon topp gis nga du démb ji dix-neuf heures nangam bi muy jot maa gis ma ñu bëri yéen ñi yor sam istat yëpp gis ngeen ma istat yi dóor mu daanu démb du yéen ñëpp gis ngeen sama isati ñii lii sama isati gis nañ ko hmm. ndax man gis mu daan du ma du ma caaxaan boo gisee bu ma bu ma gisee ñu moom gis bu ñu ma gisee ci wenn wetu mbër rek nit ñu bëri dañuy tiit <laughs> ndax yàllaay dogal mais du ma du ak man looy mën di liggéey ni du ci caaxaan hmm. lu leer laa lay wax gis nga saison bi ba mu tàmbali léegi mbëri yoon fi indee ñee fi ñaar hmm. yàllaay dogal nga xam ne kii ci man làmb dama koy teget dama koy topp topp ba may sama 19 heures 54 laa isati ne dóor mu daanu ndax loolu dama kaa topp ba mu wóor ma ne ma lii nii ci kàttanu yàlla nii lay demee. ah mais mais dóor dóor mu daanu moom kii moom. dëggoo li ma la wax comme kii ji lan. Ah, ah, amul dóor mu daanu amul daal dañoo. non non ci ci ay dóor lañu àtte làmb ji <laughs> ah, ci ay dóor lañu ko àtte de dóor ba mu rëbb kat ah moo daan ci ay dóor lañu ko lañ lañ lañ ko àtte di. dóor mu daan la de dañ dañ kaa dóor ba ñu àtte làmb ji nay leer maam ku bu ñu nee mu mu loo amat li mu jeexee dañ naan da kaa tiim di ko dóor ba ñu àtte làmb ji. te gis nga Modou Anta man du ma du ma tirise ci adduna du ma tirise gis nga man wallaay xas yi man taalibe Sëriñ Tuubaa bu dëggal laa lépp bu mën a laa xonq na xonq na bu mën na laa ñuul na ñuul na gis nga fi mu toll nii bu ma waxaalee woon yow bay liggéey barke Seexul Xadiim mi ndax